venu ici à bourg à l'hôtel Kausara, dans le département de Bourg, euh, pour une journée euh, de sensibilisation. Mais aujourd'hui, on a dressé une table et nous avons aussi installé toutes les provisions dont on a besoin dans l'état actuel dont vit le monde entier, qui est la COVID-19. Et sur cette occasion aussi, euh, nous allons faire une, journée de sensibilisation pour les populations, euh, plus particulièrement notre communauté Laobé, mais en entier les Sénégalais, pour les sensibiliser euh, sur le port du masque et de prendre des dispositions aussi sur les mesures barrières. Et sur ce cas aussi, nous sommes euh, en parfaite raison aussi de réunir notre communauté Laobé euh, pour leur dire que nous sommes des Laobés et nous sommes fiers aussi d'être Laobés. Et nous voulons aussi la mobilisation de toute notre communauté en engagement et en participation aussi euh, de se réunir pour se mettre autour d'une table et de voir comment trouver une solution participativement pour aller à la conquête de tout ce qui peut amener le développement économiquement, économiquement socialement dans notre pays et dans la diaspora. Ceci est l'occasion aujourd'hui de nous réunir ici autour d'une table avec les responsables que vous voyez, le secrétaire général, le trésorier général et les femmes, dont vraiment ce sont des responsables qui sont euh, dans ce mouvement. Et euh, nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons des combattants qui se sont réunis ici à Mour pour faire euh, une communication au niveau euh, national et au niveau international pour faire un appel solennel à toute notre communauté, particulièrement de venir pour un grand engagement, de se mettre sur le point, de travailler ensemble euh, dans divers points, mais aussi pour, pour nous sensibiliser aussi dans la politique générale. mouvement bi dañ ko woote ngir suñu askan muy askanu lawbe du Sénégal ak bu diaspora aussi tout la sous-région bañ ko taxawalee nag bon yàggul mat na presque un mois maximum donc ci ndigalu aussi suñu kilifa suñuy maam ak suñuy kilifa yi doon liggéey ci askan bi ba am fu ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi ñun nag ay ndaw lañ donc dañoo bëgg a boole suñu doole boole si askan bi ci benn dynamique mooy ñu fédéré képp kuy lawbe ci bii mouvement léegi nag ba ko defee bon ñu dem ba ci biir am fu ñu bëgg a ànd ak askan bi mooy ci wàllu doxalin bu bees muy la nouvelle donne bu ñu wax comme ni ko rek dañoo bëgg a doxalinu askan bi donc ci doxalinu réew mi parce que wax lawbe di nga wax ne au lawbe dafay nekk loo xam ne donc dafa nekk un cest à boo xam ne donc dafay doxal lépp li wàllu économie ak wàllu commerce donc ci wàllu adduna moo tax ñun duñu ci des ginnaaw ci dara ñu woote mouvement bi bon mouvement bi nag ñi ñëw tey du ñëpp parce que am nañ fi ay coordonnateurs comme Dakar Moustapha Sow mi ngi fi am na aussi Fatou Sow Waalo moo jógee ba Waalo am nañ aussi ku ñuy wax Ibrahima Alaaji Ibrahima Sow moom aussi mi ngi dëkk Jaajaay Ndey Sow mi ngi jógee Ngàcci ainsi de suite et aussi am nañ fi un trésorier général muy Mbay Joor aussi la femme qui est son adjointe moom mi ngi doog ñëw léegi muy euh, Samba Jigéen mm, aussi am nañ fi Fatou Sandiara donc dafay baax aussi ñu tudd ci fi teew aussi amna na fa aussi Khadim Bana mom moy la maman donc du du mouvement donc ñun ñu fi tew ce n'est que le c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg mais amna na ñoo ñoo xam ñu ci ginnaaw ñoo ñuy dooleel ci lepp légui nag tey bés bi tay liko ko tax a jug mooy dañoo woote juste pour lancer mouvement bi officiellement ñu xam ni mouvement bi kat juddu na bés ki tey ci walu doxalinu bu bees président bi nak dañ ko nommé bon ak désignation provisoire képp kuñ fal rek dañ la fal provisoirement rien que pour wax ni ëllëg kat ñu ñëw ëllëg seen seen poste mi ngi ci biir mbir mi pour ñu yaatu mu gën a yaatal donc bagage yi pour ëllëg képp kuy cadre lawbe képp kuy intellectuel la képp aussi kuy commerçant wala ouvrier nga am ci place ci biir euh, mouvement bi tey aussi am na beneen point bu ñu war développe muy le point de la sensibilisation mooy wàllu ñaax nañu ci covid 19 ku wax jamono ji jamono ji daa xaw a waar lool lool lool lool muy wàllu pandémie bi fi nekk muy le coronavirus dañoo bëgg dem suñu mbokk yi wax ak ñoom ci walu covid bi aussi di leen sensibiliser pour ñu bàyyi xel ni feebar bi am na parce que ñu bëri gëmuñ ko mais dafa am te aussi mi ngi yóbbu ay bakkan donc yoon la aussi en tant que ay jeunes ñu engagé wax ak ñoom ne leen kat nañ bàyyi xel nañ sàmm seen njaboot sàmm seen bopp ngir ëllëg kat ñu mën a am une communauté donc bu xam ni dëgër na xeex na aussi ci coronavirus ci Sénégal ak ci diaspora bi fu may terminer mooy bon ñi ngi ñaax ñëpp ñi ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn amuñ parti politique bu ñu bokk bokkuñ fenn actuellement dañoo ab politique fi ñu toll nii li ñu tax a jóg mooy ñu boole askan bi mu nekk benn ba pare ñu dëggal askan bi xam fu ñu jëm bu ko defee nag politique moom kenn mënu ko wax ni duñ ko def parce que politique moom dafay ànd ak àdduna mais jamono nekk nii moom képp ñuy woo dañu lay woo pour nga ñëw bokk ci askan bi bokk ci mouvement bi pour fu ñu mën dem incha allah bu defee ñu àndandoo xaajandoo rek donc lépp doon benn. di woo suñu mbokk yépp képp kuy lawbe foo manti ne ci àdduna bi. ñu tàllal la su la wax suñu loxo di wax ni ñu ñëw liggéey ndax lawbe am baat ci réewum Sénégal loolu moo doon suñu ay tànk yàlla def nag ba ñu ubbee mouvement bi bëggoon nañ ci lu rëy waaye ba tey fekk yoon jeexul waax sil du jeex mu tombe feebar bi ñëw lëmba réew mépp muy coronavirus bi tax ñu limité ko nii def ay quelques personnes yi rek waaye bu ñu ñëwoon macha allah defe naa ni bu ñu xëcc sax ci couloir bi waaye nag yàlla def ñu dogal ko rek limité ko def ko ay presque ay vingt personnes wala 30 ndax am na ñuy ñëw ñu ngi ci yoon waa ma dend ak sama président yi Pape Demba Gadiaga moo nekk nii Pape Birame secrétaire général Laaji Mbay Joor mi ngi fi trésorier général Grand Mbay géej waaye mi ngi fi Adama Gadiaga pharmacien mi ngi fi Moustapha Sow bu Dakar mi ngi fi ak Laaji bi jóge Caajaay coordinateur mi ngi fi waa Xadim Bana mama di mouvement tamit mi ngi fi Fatou Raky mi ngi fi Ndey sire moom itam jóge ba salum Samba jigen mi ngi fi moom mo don di suwar parce que ne ci compte bi don di suwar sunu doole nu boole won rek sunu doole ak sunu ñaka dal di ci am luñ ci def waa diaspora bi tamit def seen doole bu ñu am sunu ay masque am sunu ay tiset def ci dal sunu woote dal pour ñu sunu a sunu mbokk yi masque yi wax leen di xew jog dal bëgg liggéeyal sunu askan loolu rek mo ñu ñor sunu askan rek moo ñu wax ndax nun boo seetloo lawbe askanu lawbe dafa dis gannaaw ndax nun képp kuy tëgg ku ne soo jógee boo ànd àndut law lawbe doo am la neex il faut nga wooy law lawbe mu nekk di la taasul di la woyal nga koy fay ay mille francs mu yëkkati ay tiset di la jox wala kap wala mu jël benn deux mille francs neexale la ko nga neexalal ko ba mu neex su toogee fàtte la loolu lañ fi bëgg a jële am suñu yu fi bopp loolu daal lañ fi bëgg a jóge am suñu leader boo xam ne bii bu law bi bëggee këyit dana ko yomb bu law bi bëggee leneen dana ko yomb ndax nu daal gisuñ suñu bopp ci nguurub Sénégal état wu Sénégal sax laay wax ñuy nekk jigéen nekk partout dans le monde law bi yépp nag lañu wax àdduna bi yépp dama ni leen nañu bàyyi li ñuy def di woyaani di topp nit ñi ñu leen di solal ay tiset kat moo fi jeex tàkk nañu jóg ñëw tàllal fu sa mbokk ne nga ni ko ñëwal law bee jóg nañ dañu am suñu fu bopp

parce que expérience bi mi ngi fi xam-xam bi mi ngi fi lépp ngi fi dëgg la nag tey tey tey am na loo xam ni boo sax nit ñi mëna la sonal motax ñu nekk ci ben stratégie mais dans le long terme askanu lobé ñëpp dinañ ko dégg ci Sénégal bu soobee yalla parce que dañu am wàll bo xamni ne dañ ko war jël té ñing ci liggéey bu baaxa baaxa baax des fois sax sama compatriote yi so gisé ñuy répondre ci yenn façon yi mooy li olof Njaay wax rek ku nu xam foo jëm doo mus a yegg mais incha allahu rabbi bu yàlla defee jàmm Sénégal fii lawbe dafay am wàll te incha allahu rabbi wàll boobu ñun dinañ ko ni ciixtee li ñu tax a jóg ci mouvement bi mooy ñu boole suñu askan mu doon benn bokk ndey bokk baay ànd liggéey parce que mouvement bi dañ ne soxlaa gu ñu politique mais du ci mën a ñàkk bu ñu demee ba ca kanam dinañ xool ko jara àndal ñu ànd ak moom askan wi liggéey pour mën a gis seen bopp parce que nag comme ni ko suñu jigéen ñu baax ñu waxee romb nañ suñu bopp fu ñuy feccale kenn wala di tëggal kenn wala di taasul kenn il est temps dafa jot nag pour Laobé mën a gis boppam léegi nag mouvement bu ndaw bu door a juddu ñu ànd tudd mouvement ànd suqali askan Laobé ànd nawle wax ne mouvement bi dañuy ñaan yàlla ñu bañ a mel ni mouvement yi fi jógee ñaan yàlla yàlla dimbali ñu jàppale ñu ba lépp li suñu fiñ ko xalaat ñu jëme ko ah, xel nak moy fàttu le président pap Demba Gadiaga xelam mu fàttu ci wax suñu présidente bi fi nek Assapoula Gueye Boy djum man ma top ci mom ñun lañ fekk ci fi Mbour man nak sax affaire dama cey gëna content ndax xolal lu toll ni Sénégal yëpp tanu ñu ñëk ñoo tan fenn fudun Mbour ñëk ñoo xol fenn bu Mbour kon ñoom am na fu ñu teg a dëgg yàlla di leen sant di leen gërëm dama leen di doolee ñaanal rek di ñaan yàlla mouvement am bi fépp fu ñu koy xalaat rek yàlla na raw suñu njort ci kat suñu yàlla liñ ciy xalaat yàlla bu mu ci am yàlla bu noon fakastal ci baaxu yàlla yonente bi joni mi de salmina yimɓe ɓe gonɗe e nder fedde ye kala to biddo labbo woni to woni france to woni italie to woni amérique to woni fouta to woni kasamas to woni mauritanie to woni mbour to woni jagañaaw to woni caajaay to woni fisal mbaadal to la bo woni kala minen min noddima jaggoniren ngiden yuma ngiden bama ndax joni min tampi ngardo kala rek nawa min sa yahi to min temen nay wala temere joy min ngaman ma min fijan ma sa ƴettoy sa dañi ko jiɗɗa ko so min somin ngare der galema riiwa min walla walla haalta min ko weli min jooni noon ngara liggoɗen ko liggogol tan woni ɗo hay goto dañani hay goto wawa wiide min tan wonata ɗo min jeeyi ɗo minen ko ko min yiɗ jahde ha min jaha ha min jahoyto to dañuy woo nag bépp law boo xam ne yaa ngi ci diaspora bi ak réew mi di la xamal ni ya fi daan jaar ñaan nañu yàlla bii dootul mel ni yooyu

te réew mi defuñu ko pour benn xeet ne xeet bi rek ñoo fi nekk sénégalais kon lawbe du jaam du koo xamante ne nii terroriste la lawbe du koo xamante ne nii dëkkul Sénégal mais nous sommes des sénégalais purs et durs te nous sommes une nouvelle génération boo xam ne ña askan bañ daan wax naan jànguñu xamuñu ko xool jeunes yi fi toog nga xam ne am nañ ay master am nañ ay doctorat kon tey lawbe seeni do seeni yaay ak seeni papa jur nañ leen fi ñu leen war a jure te am nañu défi boo xam ne ñun ñoo ko war relever te incha allah ci kanam tuuti Sénégal ak àdduna wërngal këpp yëpp dinañ gis taxawaayu law bi dëgg dëgg dëgg ci biir réew mi ndax nous sommes des jeunes engagés te on a des femmes yoo xamante ni elles engagé te dañ ne derrière derrière chaque grand homme y a grande dame te on a de grandes dames yoo xam ñoo nekk suñu ginnaaw te ñoom it wax dëgg yàlla mosu ñoo des ginnaaw ci xeex bi te ku ne xam na ne soxna boo xamante ne lawbe la képp ku bo képp koo xam ne bëgg nga defar fii war nga tabax tabax réew mi soo àndul ñoom doo am dara te ñun en tant que ay ndaw dañoo ànd ak suñuy yaay ak suñuy sœur pour fexe ba askanu lawbe am benn image boo xam ne ci Sénégal incha allahu bii ci kanam tuuti dinañ gis lawbe taxawaayam ci réew mi te pare nañu nag fu ñuy seen nawle ci réew mi rek pare nañ ñun pour taxaw foofu man en tant que le responsable moral en tant que le président du mouvement provisoirement Pape Demba Gadiaga dama ni maa ngi woo àdduna yëpp ñu ñëw ñëw jàppale mouvement bi nga xam ne mooy suqali askan lawbe tey ñu ngi fii ci Mbour la 15 août sunu taxawaay bi njëkk mooy fexe ba sensibiliser nit ñi ci feebar bi jox leen ay masques waaye wax leen ni feebar bi am na lépp loo xamante ni mën nañ ko jël comme mesure barrière ñu jël ko ngir mucc ci feebar bi beneen bi ci tegu mooy ñëw nañu pour woo sunu askan yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk muy communauté lawbe ñu ñëw jàppale si mouvement bi nga xam ne mouvement jeune la te ñoom ñoo ko mën a yëkkati ba lépp lu ñu doon séntu ci mouvement yi nga xam ne créé woon nañ ko fi mouvement bii nii incha allah fajal leen seen naqar loolu moom moo taxoon tey ñëw fii tey ci Mbour mu nekk suñu premier pas nekk suñu premier action asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu